5M TV Sénégal mbokk yi si fur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm sëriñ Modou Lo Ngabou ñu koy woowee ab sëriñ ñun ab sëriñ la moom nag euh, dañoo gis ne fan yi ay coow dafa xew euh, ci digganteem ak ay yenn soxna yoo xam ne dañuy wax ne daf leen a tëddee ñuy wax ne soxna yooyu kat ay jabari jàmbur lañ moom nag sëriñ Modou Lo Ngabou ñu nekk fële ngaabu Ngabou euh, ñëpp ràññee ko muy sëriñ Modou Lo Ngabou mu ndaw moom nag dañoo gis ne ay audio génn na ñu ciy dégg kàddoo muy wax kàddu yu ñaaw yoo xam ne lu yéeme la mu nekk loo xam ne daal dëgg yàlla doy na waar trop sëriñ Modou Lo Ngabou nag weddiwul ne moom moo def euh, li ni mel mais mi ngi wax ni nag lii lépp seytaane la euh, yàlla def ko jubloo jéggal ay bàkkaaram rek moo tax mu weer ko nii mais nag lu doy la ndax buñ nee ba nga xam ne jamono ji kat sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ñu jiite leen kat ñoom ñooy def yi kat dëgg yàlla kenn amatul euh, maanaam xel mu daal ci ne kon euh, maanaam réew mi dina gaaw a baax. kon mbokk yi joxe leen dig daje beneen incha allah fii ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf euh, ci ànd wekk 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné di partage vidéo yi jaa ngeen jëf. 5M TV Sénégal.